maa ngi bale àq di tey bala àq dañ tàgg yéen mbokki bi mu yëpp nag am na ak cant ci woo gi ma woon ci ndigal yi mu Sëñ Tuubaa digaloon te fekk sama ci des def ko ni ñu ko bëggee woon ak na ko diglee woon loolu cantam bopp la nga xam ne ñu ngi sant bu baax ñaan yàggoo seq yàgg toxan ndigal si day see ngërëmam mu mu bokk lu ñëpp waaye bu baax ñu ko bëgg a defee ngeen ko ni hmm, mu ngi fàttaliku lu ñu fi indi boole na bàyyi na yàlla sunu borom jàmm yàlla sunu borom doxal suñu li suñu usul kitaab min qablikum iyaakum an ittaqullaa yaa ayyuhalladiina aamanuu ittaqullaaha haqqa tuqaatihi wattaqullaaha mastata'tum yi mu seq haqqa tuqaatihi jafe na waaye mastata'tum ak yërmaande sunu ñëpp te mën nga caa def nga tolloon waxtanu billahi jamii'an wa laa tafarraqu boole xol yi loolu koy fàttali ndigal suñu borom si may rafetlu jaamu yàlla may rafetlu diggante jaamu yàlla bu nekka ak morom ma ku may defal sa borom sant ci sa digg sa morom ñu fàttali ko it fàttali it di ko def ci teet tere yi yi bokk na ñi nga xam ne maa ngi koy fàttali itam taxasoo bu bari bi diggante góor ñi jigéen ñi si ay kaay yëpp war nañu jigéen ñi war nañu berante góor ñi ko fàttali fàttali yi ñu war ñu ñu juróom ak weeru koor ak ak ak ak sarax ak yëpp noonu koy fàttali waaw indil lislaam ji yi neex yëpp xam nañ ko xanaa du ca soññ rek waaye ku xam na ko maa ngi ci sama maa ngi ci sama borom maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom te di ko jégglu wala ko te laaj ko ci xéwalam yi tamburu jeexale te diglu ko ko laaj kenn jéemoo ko lu ko laaj ko sant ko ak laaj ko ñaan ko ginnaaw loolu itam ñu ngi fàttali bis bi nga xam ne sëñ Tuubaa ni ko digal muy màggal gi gàmm gën fi bopp boo xam ne di ko daa jëf tuuti ko tuuti ko digal ñoo ngi koy fàttali bañ ci àggee jàmm ak ñëpp fan dundal ko lu si yéene màggal yonente bi sax moo ko day sant rek ne ci mën koo def nga def ko fa ku fa sa bopp ñu koy def nga fekkee fañ koy defee te ànd ko ak ñoom ñu mën a doon waaye bisu gàmm nga yemale ko guddi nga ko jëkkoon ak ga ca topp loolu dara yoon ko ci jullit ñu sant yàlla bu baax a baax na ci ko sant ñu ci dolli di ko ñaan ci ñu ñuy digal di ko laaj ko laaj ci xéwal ñu ak ñu mën a ñu ak mënoonam li sallallahu alayhi wa sallam wa jégalu bu baax a baax ñaan yi yàlla jégalu mais foofu ñu sanc sanc nañ fa kër Sëñ Tuubaa maa ngi leen digal nañ fa gàmm maa ngi leen digal jàng ñaar fukki am rek juróom-ñett léegi kër Sëñ Tuubaa am rek wax nañ defal nañ ko jël moom fu ñuy digal naa ne gàmm fa de gàmm fa ñun daal bi ñu ko ñu kër googu te waaye fu ay di gàmm rek nga dem ba koom ñoom def ko te gan yooyu laa laa leen di fàttali ñaar fukki ak juróom it ngir sëñ Tuubaa yi ginnaaw loolu itam fàttali fàttali ko yàlla sunu borom waatu ko ñu ko di seen tuddaa fa ant fa am fioxum am fisoxum loolu ñu mu dal fàtte yàlla yàlla fàttali fàttali loolu fàttali ko jot na fi ñu toll waxtu waxtu waaye sa ñaan ak si sàkki sarax te ñu naa si tuub donc il faut yàlla amaat xaddamaana واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعدلنا وما أطهر منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بك من فتنة الماء والممات من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال من أصحاب النيل وسوء المسيح السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهر رمضان